mbokki internet dal len ak jam mu nek lu njëkk eh, ginnaw ci taarixub histoire politique ab politicien jokk ne fay julli ci aljuma ci ap kërup kilifa diiné ñu daal di ko koy ayé ginnaw Ousmane Sonko ciow ya nga xamantene nak amon na ci diwanu ko mbacké ak manifestation yooyee daal dinay am ay kital, ci ap communiqué la khalifa bu lew na di serigne Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa ñass daal di sàkkoo ci Ousmane Sonko njiital Pastef ci dogal gi nga xamantene bëgg na kaa daal def julli ci aljuma fële nga xamante ni nag moo di ca Léona ne ko nag yëg ni yow mi Ousmane Sonko bëgg nga fee ñëw daal di fii amal li nga xamante ne moom moo di jullik ajjuma fii ci diiwaanuk Léona Niassène ci Kaolack mu daan ne ca boobee ñoo ngi sàkku ngir nga daal di toog ndaxte nag bëgguñu benn perturbation maanaam ay yëngu-yëngal foofee nga xamante ne nag moom moo di seenub euh, dëkkuwaay ginnaaw bi loolee nag muy xamle ne ay milliers de pèlerins maanaam ay taalibe ñooy bàyyeekoo fu ne ngir fekkee si ziyaara maam xalifa gi nga xamante ne nag ñu ngi ko fay amal jamono ji mu daal di tombe ñaareel téeméer ak benneelu édition bi nga xamante ne nag ñoo ngi amal boobu la ziyaara waxtu boobee nag jàppaleen ni famille religieuse bu leew na ña seen googee ñoom bëgguñu benn yoon li nga xamante ne nag moom moo di ay yëngu-yëngal foofee ci seenub dëkkuwaay bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante suñu ya nekk ci sene wépp ñoo ko daal di jàllale ginnaaw ab communiqué woo xamante ne nag gis nañu mu daal di amub kase amub signature ki numéro de téléphone ñoom ñuy xamle nag daal di ne kii di Ousmane Sonko bu fekkente ni dafa fabu woon ngir ñëw julli si àjjuma fële ca leew seen ñu ngi koy ñaan mu daal di toogaat ndaxte nag la xewoon ci Touba bëgguñu mu daal di xew fële nga xamante ni moo di ca Léona Niassène te ay doomi aadama yu bari ñooy bàyyeekoo fu nekk ngir ñëw daal di amal li nga xamante ni moom moo di seenub ziyaara maam Khalifa Niass waaye ca waxtu boobee nag ba communiqué ba génnee rek jàppale ne porte parole Khalifa Niassène daal dina yëkkati ay kàddoom ñoom information boobee ni ko ñëpp jotee ñoom noonee lañu ci jotee xamul ba xam lu wér la xamul tamit anakan moo daal di xaatim boobule communiqué ginnaaw bi nga xamante ne na numéro de téléphone ya ca nekk ñaar ya woote nañ ci jàllul waaye benn ba nag ba ñu wootee ka ñu jot waxu leen wax ju leer moom xamul communiqué boobee ana fan la bàyyee koo xamul tamit ba xam xalifa bi moom moo yëkkati yooyu kàddu wax ko ak kan moo ko bind ñoom daal jamono ji nee nañ mbir ma dese naa daal di leer ci seenu bopp ginnaaw bi nga xamante ne nag communiqué boobee ñu ngi koy partagé ci réseau sociaux yi ñu ci bari di ko ñaawlu ginnaaw ab jullit bu fas yéenee ñëw julli si àjjuma ab xalifa général daal porte-parole famille Niassène moom mu ngay xam ne ni communiqué boobee nag bu fekkent ne lu authentique la ñoom yëguñu ko benn yoon wala tamit bu fekkente ne ay nit ñu mal intentionné ñoom ñoo ko daal def yëguñu ko lu mu ci mën a doon daal nee na mbir ma ñu ngi koy vérifier te lu mu ci mën a doon rek dinañ daal di dellu si ñoom tamit génn indi ay leeral ci waxtu wowe sax nga daal gis ni ki nga xamanteni nak mom moom di bu ñasseen daal nay joxe ab ndigal ke di imam bu leew nu ñaseen nege ni ci waxtu julli juma ji nak mom daal nay indi ay leral ci information bobé nga xamanteni nak ñu ngi koy jàllale naan dañaa téré njital pastif mu daal ñew fele nga xamanteni mom moom di ca diiwaanu leew ngir daal fay amal ab julli juma mu daal ne loolee dara du ci deug ñom kër gogé kërup l'islam la te képp ko xamanteni ñew nga fa mo xam ci ku jégi nga far wala ci parti au pouvoir bo fa ñewé ñom ñoo ñëpp lañu daal di yemale ku ca ñëw julli tàllal say loxo ñu daal di lay ñaanal ndaxte politique ku nekk yaa koy def ak façon ba nga koy defee waaye ku ci ñëw rek danañ la daal di dalal fële nga xamante ne nag moom moo di ca diiwaanuk Léona Niassène ca waxtu boobee ñu daal di gis waa Pastef daal di defu communiqué di dànkaafu ak artu ndaw ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di patriote yi ngir ñu daal di ànd ak dal te bañ a yëkkati ay wax yu teggunawul di ko teg ci kaw kilifa diine yi ca waxtu boobee nag communiqué boobee moo ngi daal di circuler lenn ci ay réseaux sociaux ginnaaw bi nga xamante ne nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Léona Niassène daal dinañ di démentir boobule information